xanaa ci gars yi rek xam nga gars yi moom mbëri léegi dañoo bëgg lu a waaw. ah ñu ci mel ni mbëri yan ji. ah xanaa fi ma nekk ñu waa Kaolack rek waaw benn combat laa fi am gars yi di daw boo waxee mu naan sa premier combat daa métti woon dugg na fi gën fi waaw te man tamit euh, duñ ma tegal combat ma ñëw ma jóge dëkk ba ñëw ba fii di ko caaxaane. ah mbër est-ce que nekkul yow da ngaa toj mbapat yi ñoo tax mbër yi di day ragal wala nu mu demee loolu moom am na moom waaw ndax ma damay mbapat ba léegi sax maa ngi mbapat waaw mbapat bu am côté euh, zone Kaolack boo demee di ma fa gis mbapat bi ñaata daraapo nga ci jël. non mbapat mbapat moom li ma fa jël ci ay drapeau mënuma kaalim. waaw bari na trop bari na trop jël naa ci ay nag jël naa ci xaalis loolu jël naa ko ci mbapat vraiment. waa tey tey brodeur bi ñaata combat nga ci am. brodeur bi am naa ci ñaari combat ñaari victoire. kan nga ci bëre. Euh, bëri naa gaskel gaskel laa njëkk am euh, premier combat daan ko ak loran Kaolack daan ko. ak Laurent léegi tey ñan ñoo sa kanam. ñoo ñi sama ñi sama kanam moom bëri nañ waaw ay ñoom Tyson bu ndangaan yi ñoom ñëpp samay naawle nañ. ñoom ki ki ki mu fi mujjee daan barki démb euh, ajuma de ñoo samay naataango lañ koy wax moo maam Mor te nit dof sama combat moom ma maak euh, moom dañoo dox suñu combat maak moom yaa ngi dégg buñ d'accord avance war a ñëw nit dof laa la wax de avance war a ñëw après ñu tere ko mu dem jël bala gay okaas xam nga loolu rek bëgg lu nooy la waaw yow ban écrit nga ne maa ngi écrit okaas mbooloo écrit okaas mbooloo nga ne okaas nekk waaw waaw tey bu ñu la joxoon eh, écrit eh, nu mu tuddati bu la joxoon tey avance su nit dof tey di nga ko fanaanoo. waaw yow amul xaar ma ñëw sax man avance boo ma indi man damay jël waaw waaw. Modou Lo bu Mbiteye. Modou Lo bu Mbiteye bu ñëwoon jël man man man ku ñëw rek jël naa waaw du yàqu ci man loolu moo xam naa ko waaw te du ma laqatu nag di naan di wax kase yoo xamante ne xam naa ko ne ma ko fay ndax gars yi dañuy naan boo boo ma joxee du ma jël ko après boo ñëwee muy wax kase ñuy wax kase yoo xamante ne duñ ko duñ ko kii duñ leen ko fay mais man man moom combat du yàqu ci man waaw. foo jàngee bëre. non man moom euh, suñu dëkk laa jàngee bëre ndaw fen euh, euh, côté Jaxaw Siin. foofu la ci ban raison la Fatick waaw sam benn mag moo doon bëre tu doon délinquance di di di woon bindu délinquance may topp ci moom waaw ba yàlla def ma mbër. lu tax mbër kawel tey di lay daw. xanaa lu ñu gis ci man la rek man moom lamb dama kaa respecté waaw su ma amee combat lépp lay indi dinaa indi xeex dinaa indi bëre dinaa stade man maa koy feesal waaw te loolu moom boo ko def gars yi dañ lay ragal. est-ce que nekkul loo tax mbëri lay daw ak yooyu noonu doo wàññi dóori tuuti ndax nga mën am combat. mais ni ma koy wàññee ñoom yor nañu ay loxo comme man kay ñoom ñoom gars yi da ngay dégg ñu naan mbëri séeréer yi mënuñu kii mënuñu dóor mbapat lañu mën xam na loolu la leen nax ci man ah ndax loolu lañ doon wax xam nga waaw te ñëpp man man euh, fi ma nekk kii laa fa jàngi kii mbapat dóor la ñuy def waaw simple bi sax li mu fa am bariwut kon côté boobu noonu tey dañ daan gis foofu mbapat bu fa amee te ele ko ñu koy dem mbapatu simple waaye ñoom seen mbapat toujours dóor lay doon dóor lay doon lay doon lu mat cent dañuy bindo yàlla xam na ko waaw léegi ngay fana fanaana dóorante ba bërset di nga bëri lu mat six combats soog a finaalu lii moom maa la ko wax. lépp dóor lay doon lépp dóor lay doon. dina nga koy jël. waaw waaw. est-ce looloo tax booy mbër yu bari lay daw. xëy naa loolu la mais mais nag nag ñoom ñoom nan déggal seen bopp rek ñëw ah góor ak góor la rek man noonu laa ko jàppee ah? ban appel nga lancé tey. ah appel bi may lancé kay mooy mooy mooy mooy gars yi bañ euh, wàññi dawante bi buñ bëggee lamb Kaolack neex kay nañ wàññi dawante yi ñëw ñu bëre ñun ñëpp mën nañoo bëre ndax 2017 ba léegi boo ko xoolee ñaata at la. yàgg na combat te damaa bokk bokk ci lamb Kaolack waaw ah, dama bëgg ci lamb Kaolack waaw. Ah. waaw ñun ñu ngi waajal benn tournoi boo xamante ne mbapat lay doon ndax yow fas yéene nga pare pour bokk ci loolu. non buñ ma jëlee pare naa pour bokk ci te rafetlu naa ko trop wa ah, loolu mooy initiative bu baax la vraiment dégg naa ko mais initiative bu baax la